Heavy Waves.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 Diop mbir mi nag nee ñu ñaari touriste yi jigéen yoo xam ne ay belge lañu ñoo ñëwoon ca Mbour ngir passé fa seeni ay vacances am bés nag ñaari touriste yi jigéen yooyu xëy suba ba ngoon di visiter Petite Côte bi ci noonu jeune dame belge bi di woo ci turu LP ak copinam bi décidé loger ci résidence bi nga xam ni ma nga nekk ca ngeriñ ngir dallu fa ay fan ci même jour boobu ñu fa ñëwee vers trois heures du matin ci la visite bi dal di remarqué ne touriste yi nelaw nañu ba yendoor naka noonu ci la dal di yoote ba dugg ci néegu benn touriste bu jigéen bi tëdd ñu nan deetawaay sawaay bu mu gisee ndaw si jigéen si tëdd ci kaw lalam moom kese ci la sawaay summee ko <laughs> waaye moo xanaa kii daa feebar ma ne vigile bi bi mu summee ko ba ne dung dal di ñëw tëdd ci wetu ndaw si tàmbale ko lambatu ba ko violé <laughs> waaye ma ne xanaa kii célibataire la ci noonu nag lañ ko tegee loxo arrêté arrêté ko dal di yóbbu gendarmerie gannaaw bi ni ko lanketee nag vigile bi ci boppam nangu na li ñu ko tuumal dal di jéggalu ma ne ko nag loolu du la ci génne de li ci gën a ci doy waar nag ci kanamu enquêteurs yi ba léegi vigile bi daf ne ba léegi li mu def sax xamul lan moo ko ko defloo ma ne ko bul ne dañ laa liggéey rek am ponkal mu yot ba dugg ci néegub jigéen su méegu ma ne bul ne fi dañ laa liggéey moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew doy na waar ca fañu naan adeyaan ab góor gu ay atam toll ci juróom benn fukk ak lu topp la benn waay bu tàggoo xelam rey ba noppi dal di koy daggatee eskay ma ne mi mi ngi xew la cinq bi weesu ci booru dix heures mu doon musiba boo xam ne dafa bett askanu adeyaan yëpp surtout nag ña nekkee ca Tambacounda Koungheul góor gi ñu faat nee ñu ab toolam la yoroon ca village bu ñu naan Koungheul di wuyoo ci turu ji moom nag li bayoon ci toolam yëpp la bëggoon jaay dal di yabal ay doomam ñu dem ci tool yi doom yi nag bi ñu demee ci toolam yooyu daa di fay fekk ab benn waay bu tàggo xelam buy wuyoo ci turu am daabo naka noonu ci la ko xale yi ne na génn ci seeni toolu baay naka noonu ci la waaju tàggo xelam dal di songu xale yi sëkkatal leen xale yi nag ci la ñu delloo alerter seen baay en revanche góor gi dal di dem ci tool ba bu mu egsee ci tool yi rek ci la ko am daabo waa ji tàggo xelam dal di songe nangu kub kub bi mu yoroon dal ko koy dóor ba góor gi faatu ma ne waa ji yemu ca jël kub kub bi dal di daggate ay cëram oh. ma ne mu daaba bi mu defee jëf ju ñaaw jooju ci la delloo nànk këram ca village bu Kunjundu bi ñu koy arrêté nag ñu ngi ko fekk mu teg ndekkeem di ndekki mel ni ku deful dara ma ne day borom article cinquante la ku mu rey perte nga te nag Sénégal boo xoolee léegi ñi tàggoog seen xel nekk ci biir nit ñi ñu ngi fi ne gàdd moo tax yu mel nii du fi jóg moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax soxna si nag li mu def ëpp na ndax dafa mere gorom dal di koy jàpp dóor ko ay kuur ba ñu yóbbu ko ca urgence <laughs> ma ne kii de xaw ma kan moo koy takk di ko yóbbu ci sa kër jàpp sa goro dóor ay kuur ba mu nekk urgence ay waay seet leen jigéen ñi ngeen di takk waay mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz